man la ma ngay tàggoo de jëlal ben pep rek sanni sa tol di topoto mu ne ci bir di di def yimi def yalla di ci def ay tajalliyatam mu dem ba yag muy commencer di lak dem ba yag mu nëb dem ba yag mu toj dem ba yag mu genn ñax yu sew dem ba yag mu mbeuk suuf ci genn di dem di développé di développé di développé ba yag mu def juroom ñaari gub xar yàlla benn pepp nga ko joxoon mu jox la juróom-ñaari gub benn bu ci nekk maanaam téeméeri pepp ñu dem ba yàgg vertetul muy marron ma ngay jëm mag de duutu gën a verte day gën di marron sàkket rek lay mujje te lu mu yàgg yàgg yàgg ci sàkket bu amul xer du taxaw te bu def bu fa defee ñaari nawet ñetti nawet gone yeesalaat sàkket yi kon ana nit kon gis nga ko boo ñëwee aalamu bii di aalamu dunya foofu ngay mujjee yaa ngi aalamu dunia soo ñëwee aalamu dunia nag dafa amaat beneen aalam bu nekkaat sa kanam muy aalamul barzaqi aalamul barzaqi entre parenthèse la mooy entre dee ak dekki dee mooy barzaq dund mooy àdduna ji kon bu la yàlla bëggee jëlee ci àddina ji daf lay pénétrer loo ci néeg bu am ñaari porte soo ne yulub ci bunt bi numéro un yaa ngi ci biir néeg bi biir néeg boobu nag moo tudd barzaq beneen alam la danañ ko dund foofu mooy nekk suñu septième monde alamul barzaq bu ñu dundee ci barzaq ba yalla bëgg ñu génnewaat aalamul barzaq yi daf ñuy jaarelewaat ci deuxième porte bi deuxième porte boo fa génnee xam nga nekkatoo première porte nekkatoo tamit derrière première porte derrière première porte addinaa fi nekkoon génn nga addina yaa ngi ci première porte bi yaa ngi ci biir néeg bi yaa ngi barzaq boo génne ca porte ginaaw ba léegi foofu mooy wax alamul baas mooy alamu dekki foofu mooy suñu huitième monde alamul baas ñu doog a dox nag wuti péncim yàlla yàlla atte jaam ñi xool nag fa man yaamal misqaala saratin xayran yara wa man yaamal misqaala saratin saran yara su boobaa nag alamul xulut lañ jëm muy monde éternel mooy ñi ñu attee ba xam seen jëf ju baax yóbbu leen àjjana mu nekk seen kër éternel ak ñi ñu attee ba xam seenub safaan yàlla jéggalu leen yóbbu leen sawara muy seen kër éternel foofu mooy alamul xuluudi ila ma sha allah kon nag yii ku fi jaar leneen li ñëw ci àdduna ciy nattu dangay xam ne doo ca dara waaye tamit dangay xam ne nii la yàlla tëggee ak say bokk loolu mbirum azal la du mbirum fii mbirum azal la du fii yàlla nag mooy seet nu ko neexee mu tëggee ko jamonoom mooy seet tamit ku ko neex mu melal ko nu ko neex kon nag li nu takkee te indi ni ci àddina si nanu ko bàyyi xel muy jaamu yàlla nungoo liggéey tegu ci saraatal mustaqima bëggante soppante sunu làmmiñ wii nu fas yéene muy wax ak dëgg walla mu noppi man kaana yu'min billahi wal yawmil aaxir fal yaqul xayran aw li yasmut ku gëm yàlla ak bis waxal lu rafet mbaa nga noppi ku munta wax lu rafet te noppiwut bu ëllëgé buñ jëlew lamñam diko ko tawi ba melni buum ñu diko ci yew na xamna moko tek bopam waja kat ñëw na ci yonente bi ni ko inna shara'i'al al islami qad kasurat alayya ya rasulullah faqbirni bi shay'in atasabbatu bi munako la yazalu lisanuka rattaban min dhikrillah naka sharia kat ak terilini rungena ci man wax ma yonente bi yàlla bi lan lay def lo xamne dana ko saxo sama xel dal yonent bi ne ko nanga fexe ba sallam ñu wi toy te buy toy nako tuddu yalla di toyal bokk yi nun ñi suñ lamiñ yi di lor ba fuñu tollu di tifli ba liñi am ci tuflit mënatuñ ko wann mbaa buñ ko wannee mu fessel sunu biir bokk yi tuflit yoyu ndax jëw doomu aadama mo ñu koy jox ndax fanan ci derub nit ñu koy jox ndax wax lu la lerut mo la ko jox ndax wax lu dul deug mo la ko jox ndax lewal riba mo la ko jox bokk nañ baye xel loolu kon la yasalu lisanuka rataban min dikrillah nañ fexe ba bu suñ gimiñ yi di lóor ki lor tuddu yàlla nakoy loral ak wax lu bax tam baña doon wax safa kon nak linu dajale fi di ak bok silatu rahim ta ya ayuha annaasu taqu rabbakum allasi khalaqakum min nafsin waxida وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كون بوكوغي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يلا دكوي لاج إن الله كان عليكم رقيبا كون أك بوكو دسكو ورد سام رافتالكو ak woofu bil ahdi innal ahda kaana mas'ula na ngeen fonk kóllëre ndax yàlla dana laaj kóllëre bu ëllëgee kon nag nun dañoo bëgg bu nu yàlla nee nu ngeen meloon ak seeni bokk nu ne ah, alalu àdduna day doonul woon xijaab suñ diggante suñuy bokk nu ngeen defoon ak seeni bokk nu ne ah barke suñuy bokk nu ngeen defoon ak seeni bokk nu ah, bari mbooloo di taxul woon nu xeeb suñuy bokk nu ngeen defoon ak seeni bokk nu ne ah njekkoon alali àdduna taxul woon nu xeeb ñiñ bokkal yooyu yëpp yàlla daf koy laaj kon melo woo ci mën a mel ak loo ci war a am ak loo ca man a am lu mu mën a doon bu mu nekk xijaab bu mu nekk xijaab ndax yi ñuy puukarewoo yëpp fii dong lay yem ku fi faatu loo foor foor juróom-ñaari mètre yi boo muytul sax li lay toppaat sa bàmmi lépp du mat cinq mille francs xanaa nga am doom yu baax yoo xam ne dañuy jënd ay parfum yu xaw a seer ay sikki ak yenen parfum yu a il parfum 200 yi la la gars soti ak chinois yi léegi parfum yi a ak 7 mètres per car jeex sab lay soubé sax biñ lay sax du du jeex buñ la ba y du des parfum de day desaat bu doon buñ la sangé bay fi përngal sax nga né nafib sabu fi dem mais saabu bu bees sax buñ ko jëndé du du xaja jéx du xaja jéx parfum bi tamit kerek, yi xër rek waye amo yéré yuñ la solal yu mëna jéxal parfum ñu def la ci digënté ñaari kuus teurelé la jor hmm? yonent bi de bañ ko nee bu yàlla roccee suuf si ëllëg nit ñi fu ñu taxaw ah, mu ne xanaa ci kaw jëf yi kon kenn ku nekk war naa dëgëral jëfam jëf fondement la des ko war a dëgëral koo mu jëf ju baax boo légee bu ñu roccee suuf kon fay taxaw kon nan ne ci lu baax te yéeneen jàmm lu jar xuggalikoog yëkkati mbagg ak xeeb sam nawle wala xeeb sam mbokk wala doyal dal amut ci àddina aduna ji nga xam nit ñi wop nañu ba wér daanaka ku ne da ngay xaar de ko gis muy rek ne ko yaangi tane ku yor lu muy wayaale ak lu muy neub rek a fi ne mais gaay yep febar yep ay jarag lañ yep tambaleel ca president Macky Sall ba ca president Amérique ak France ñoy jarag yu mag ñoo gëna a wéré di ñep dé nañ bu yag dañu dox ni rek léegi nag kon jëlale naa ñi ci des ndax ñooñu bu dee saytu ci wàllu sayit yi dañ leen di saytu ñooña kan moo ci am organe bu mën a defati ñaar téeméer at mun tam addina si day jeex darun faniya la tafna fihi dunya wa tantahi hadi alxayat wa tatabaddalu al arda walsama walbixaara wa nujum addina si ni ngay tekkee baas bii noonu la koy noonu la ko yàlla di lallee mu jeex kon loolu lu mata bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel koo gis muy daagu ne ko mbaa yaa ngi tane jamono ju mel noonu nit ñi dañoo war a dellu ci ragal yàlla adduna si kawaaris tabi'a yi ngay gis ak yii di xew al uqubaat ilaahiya yi ngay gis yépp mbon ngi rekk la maa ngi la maa ngi koy waxtaan ak sëñ basiir mi léegi nee naa ko ya nga daan dégg ci jamonoy luut yooyu loolu duutu am ñu naan mbon landine addina ba yàlla yëkkati suuf si rek këpp ko déedéet ba du nay tukki loolu du am ak mbon gu mën am nag fa ma kaana allahu muazibuhum wa anta fihim yàlla du nu mbugal mukk fekk yonent baa ngi fi wa ma kaana muazibuhum wa hum yastaxfiruun bu gaa yi dee mooy te am ñu sell ñoo xam ne ñu ngi fay des tey jéggalu yàlla yàlla day rus loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf moo tax yàlla duutu yëkkatiloo jibril suuf si di ko wëlbati di ko dëpp waaye bu mbon amee yàlla dana indi lu raw wëlbati suuf dafay wëlbati kenn ku ne muy wëlbati jamonoom ngay saay-saay di dàq àddina yàlla def ko piccum yàqum taxan nga di ko dàq doo ko jàpp bés ak dund jeex ci beneen meloo la yàlla di jëflante ak ñoom ndax ruus na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na yee amoon rus gum rusu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax du ko def waaye bu nu continuer rek ci defi ñawteef aka worante aka waxante lu bon a yàqante di continuer di continuer rek ah yalla, indi ay uqubat ilahiya yo xane kan kenn du ko indi jangoro yo dul gis garab indi aje yu dul faju indi mebet yo xamne dang koy dak do ko atteindre mukk léegi-léegi ñu bay mu nangu léegi-léegi ñu bay mu ne kàkk léegi-léegi ñu soxla ndox du ñu ko jox léegi-léegi ñu ne soxlawuñum ndox mu jox ñu ko ba nangu suñuy kër ñuy toltolaan ci biti te yàlla ku mën a fay bor la yàlla ku mën a fay bor la léegi-léegi nga gis dara mu naqari la lool fekk na atte bu romboon fukki at ci ginnaaw la yàlla di ko doog a attewaat kon nañu rafetal diggante yi te fexe di dox jàmm te di ko wax te bëggante te nit ci àddina amut lu ëpp ay bokkam def wenn say bëggante yéenente jàmm tey toppatonte tey seetante bu nu ko defee rek lépp dana baax wax naa ko démb ci seex mi ma demoon nee naa ko man de oto yi ma àndal duñ lakk gasoil essence lañuy lakk essence oto bii dong dong dong toog gii ma toog ci baas ba ba may jóg kenn ku ma fi jox addiyee ju mën a sol benn benn essence bu oto amu fi kon su ma jógee di seeti mbokk yàlla tax ma di ko seeti dama ne bàyyi daam dajjil ma enveloppe bu mu daj kii Mohamed ne ma nanga ma ci ne sama gayu yu baax yi jug wax manako joxal ma len ko kon bu doon ne li ngeen def ci enveloppe bi moo indi duma ñew da ngeen ma wo mu wuy ci len ngir yalla da ngeen ma wo ma wuy ci len ngir yalla man sama adina non la bëgg doxé lepp lu ma narta def ngir yalla dana ko wax ñepp dégg ko lepp lu may def tamit nañ yalla rek ko laal ndax bu fekkee ne yow fi ngay dem xalaatoo ne da nga fa dem jëlee fa million xalaatoo ne da nga fa dem jëlee fa fukki junni xalaatoo ne da nga fa dem jëlee fa juróomi junni tam leer na la boo jëloon budget ñi nga àndal déplacé wu lu mu néew néew dana mat deux mille kon danañ xam ne kat kon kii jug gi mi jug di seeti ay bokk yàlla moom moo tax yàlla moom moo tax te loolu defe naa ne bu nu ko waxut tamit di ngeen xam ne dañoo ñëw seet si leen ngir cofeel gi ngeen am ci noonu ngir yàlla nu won leen ne cofeel gu ko raw lañu am ci yéen ngir yàlla ndax bayloo ma leen tooli àllarba te waroon ngeen koy bay di di ko yanu di ko indi sosloowu ma leenub daayira ne leen dee leen ñëw ba daaru muxti di ma siyaar di ma ko jox waroon na am néew ma leen def leen i jàng su ma ñëwee ngeen dajale kees gi jox ma waxuma leen ko waaye addee ji gën a rëy ngeen jox ma ko mooy nataalu borom Daaru Muxti bi ngeen ma jox mooy li gën a rëy man nataal bii ngeen ma jox mooy li gën a rëy ci man mbay mii nag moom ñoom xulle ñi danaa leen sas ñoom it nu jàppale ko ci barab bi ma ko jox xam nga moom ni ko sëñ Tuubaa def moom mi fecc katub sabar la woon ay sabar la daan fecc sëñ Tuubaa ko jëlee ci loolu ne ko kaay di ma tuddal xasida yi mu tuub lale xam ne larax la sànni ko ca àll ba di tudd xasida yi sëñ Tuubaa yi demoon na ba bëtam yi sax am jafe-jafe ma ne ko del jàng xasida yi rek muy continuer di jàng rek ba yàgg dama naa ma yaa faj sama bët yi ma ne ko faj ko xasida yi ngay jàng moo ko faj xasida day moo ko faj barab boobu ma ko jox addi sëñ Tuba dama ci am yéene ndax man lu ma am ci sëñ Tuba lay jógee di ñëw maa ngi ñaan yàlla lu may ñàkk yàlla génnaat sama loxo dellu ci sëñ lu ma am ci sëñ Tuba lay jógee di ñëw lu may ñàkk yàlla nay génnee ci sama loxo di dellu ci sëriñ ndax du doonu ñàkk ci man bu boobaa te moo ne lu ma ci am ba joxe ko man na ma kitaabu ne benn taalibe bu lu ci man mënut a yëkkati loxoom ne sama dërëm dem na ca samay taalibe ngi toog ñenn yi sax dañ naan dañoo yor ay jar daa yor jinne yu koy jox yoru may jinne man ay jinne ñoo may yor maanaam jinne moo yittewoo ay dara waaye waaye ay dara moom amul yitte ci jinne jinne di mbindeef na man hmm? lu ma koy doye moom moom yitte ci man waaw boo sonnalee ña nga war a sonnal nekkal leen ca la nga leen war a nekkal waaye dana njoolu sa bool ba jaaxaan ak ndongam toj te du tax mu gis ko boo sonnalee ña nga war a sonnal nekkal ña nga war a nekkal waaye dana jéem a njoolu sa bool pour wuta xam lu ca ne dana yuqamti ko ba ne dar ndom nga toj te du gis la ca ne da koy ump ba dinay tukki ba dinay tukki barab boobu ma ko jox suñ boroom joxoon na ma fa defe naa lu mat xanaa ñeent te moo ne man ba may laaj suñ boroom benn laa ko doon laaj benn suñ boroom jox ma ñeent moo tax lebal yàlla am solo ndax booba dama bëgg kërug cees tewuma ko ma wax ko murit na ko kërug cees laa bëgg mu am nu mu def ne ma tey tey mën naa laa jox loo jënde këru Cees ma woo xaadim bay mi ne ko yaag soxna Adja demal ngeen wëral ma këru Cees tey tey tey tey ndax li ma yor munta weesu tey mu dem wër ne ma gis nañ benn si kàpp parcelle parcel ma ne ko bëgguma parcelle parcelle dafa tëju bopp sa bopp la te man dama bëgg lieu bu populaire ndax man dama bëgg a liggéeyal yàlla bëgguma fu may beroo di lekk ay ginaar bëgguma fu may beroo fu may nekk di gis ku ma tane may gis ñu ma tane ak ñoo xam ne ñoo ma tane ñi mën a jaamu yàlla ci man di ko def ñi ma mën a jaamu yàlla ci ñoom ma di ko man barab yooyu ñoo ma gënal xaadim bàyyi fa boobu moo soxnaa jaa ñu taalaat oto di wëraat ba gis benn ne ma gis nañ benn mais borom nee na Tiwaawoon la dëkk te suba lay mën a ñëw ma ne ko nee ko su bëggee tey tey ñu juboo ci guddi gi bu bëggul na bàyyi ndax tey tey tey dana am kër ndax xaalis bi ma yor mënut a fanaan mu ne waa ji nee ne kon nga ñëw courtier bi wan la ko ba pare ma taal sama oto ñëw courtier bi wan ma waa ji ne man de dangay mën a xool mais man du ma mën a ñëw ndax maa ngi teewoon damaa jóge ci daara ji tëral jàngale ba pare du mën a génn mooy alu Diagne moom muy ne ci télé bi ngeen koy gis te naan mooy jàngal daare sëñ Babacar ma ne ko boo ma mënee jaay ñëwal soo mënut nga ba xaalis bi yor munta fanaan mu ne ma waaye daa guddi ma ko taxi ñëw bu da ngay jaay mu daal di luyeel taxi ñëw ci guddi gi ne ma noo gisee kër gi ma ko gis nako ko ma nangam ci ay million ma ko nangam laa man mu d'accord mais du man a doon guddi gi man ne ko ah kay mu ne déet maanaam notaire yeeg kii tëj nañu ma ne ko lépp mën naa socc sotti ci guddi gi ma ne soxna Adja ajo wool diw sa xarit boobu nga xam sa promotionnaire la mu woo ko mu ne ko wàcc naa ma ne ko sëñ bi dellul sa bureau noo ngi ñëw mu dem bureau mu ne ay témoin ma téléphoné imam Abdou Aziz Sey bu Thiès ne ko ñëwal témoin ci guddi gi la njaay mi am ñu sanc ko mooy kër sama kër gi ci Thiès yàlla jox ma fa barab ma xaaj ko ci digg bi jox benn bi Souleymane Diagne comme tukki na Europe lu yàgg te amut kër bi ci des moom jox ko Baara Gueye comme yàgg naa ak man te amut kër ba ca toppaat ma jox ko sëñ Dame Seck mi ba fa desaat laa may mbay mi waaw moo tax ñi ànd ak man te yàlla yàlla dimbaliwu leen nu teg bët ci man te fu suñu yéenee di ma jëfal dañuy saxaar ba bañu dee duñ tàkk man duma ko ñuy sajji xef duma ko ñuy soxore duma ki ñuy iñaane damay ku liggéeyal góor yàlla ba mu gërëma waaw waaw dama jënd de kenn mayuma dama jënd kenn mayuma te bari na ñoo xam ne alal bu xasee dépassé huit millions mënuñu koo maye man damay maye lu dépassé loolu ndax fii ma ko may bu ci bëggoon huit millions tey tey ñu fay ko.